jaajëfal leen ci ànd bi ngi di ànd ak ñun mbokku internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. cant ak gërëm ñeel leen suñu mbokku internet yu 5M TV Sénégal xibaar yi Pape daal di yëkkati ay kàddu jàngat bi nga xam ni am na ko jëmee ko rek ci liberté électorale mu jàpp ni kon mbir mi. dafa war a nag am liberté maanaam rek képp koo xam ni kon samp na nëndam war nañ ko ci mën a boole mu ni conseil constitutionnel ak côté électoral bi mbir moomee kon seen loxo la nekk ginnaaw doole gi nga xam ni commission euh, ba ñuy déposé koppar yi rek jëm ci wàllu élection yi moom am na ko file ci réew mi ba tax na rek di saytu lu ñeel nag suñu wàllu candidature yi fi taxawee mu ni loolee itam bu ñu jokkoo ci article 106 ak code pénal euh, na muy taxawee ci mbir moomee ginnaaw daan yi nga xam ni kon war na ko teg ci seen kaw bu fekkee ni kon méngoowuñu ak la nga xam ni moom la daal di tëral te loolee lu am solo la ba tax na kon war nañ koo mën a xam bu baax a baax jëm nag ci uh, gën a ñoŋal suñu liberté bile rawatina ci candidat yi nga xam ni kon waruñoo rek wàcc ci jëm nag ci li nga xam ni moom la yoon daal di tëral ndax loolu day bokk ci li sàmm seen ak ak seen yelleef ginnaaw nag constitution bi na nga xam ni noonee la ko bëggee. mu ni leneen itam rek loo xam ne gis nañ ko mooy tëri li ñu élection yi lay file ci réew mi ndax nag commission bi nga xam ni fa lañuy déposé koppar yi lee jëm ci wàllu élection yi moom fi mu nekk nii gis nañ ni dafa jël mbir mi rek daal di koy féete boor loolee sax mu ni miin nañ ko nag moom nekkul loo xam ni lu bees la ginnaaw li nga xam ne nag conséquences yi muy jur mooy metti kay jëm ci système bi nga xam ni kon moo fi daal di nekk te système boobee sax gis nañ ni kon nañu bëggee noonee lay élection yi nag di amee ak lu mu mën ci demee rek nañu xam ni yile dogal nag moom ca ñoom lay jóge waaye itam rek ñun askan wi ñun ñooy appliqué maanaam rek ñu ñooy jeexal nag def la ca war wooteel ki nga xam ne rek moom moo ñu neex ci mbir mi ci jeexital itam gis rek événement yi nga xam ne amoon na fii ci réew mi loolee dana gën a tax nag ñu wax jëm ci suñu wàllu liberté électorale maanaam ku nekk kon ñu bàyyi la mu def tànneef bi gën kon ginnaaw constitution ak code électoral bi nga xam ni bootu na ci mbir yi avertissement juridique bi nga xam ni kon wane nañ ko mu ni nañ ko oyofal nag bu baax a baax jëm nag ci gaal gi nga xam ni fi ñu nekk nii ci lañu daal di dugg te la ñuy sàkku mooy daal di rek am wàllu démocratie fili ci réew mi ginnaaw li nga xam ni ñu ngi koy daal di dund mu metti loolu te loolee war nañ koo jëli ji jëm rek ci élection yi nga xam ni ca lañ daal di jëm nag ngir nag sàkku jàmm ak dal fili ci réew mi.